بسم الله wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi yi mbok téléspectateur yi jëm ji ngeen di jakar loolu sun borom daf ko tek am natou muy febar bi nga xamanteni mo genn génn ci yaramoom bi ñu diko sakul ndimbal mi ngi fi ci Touba Janatul Mahwa ñu bëgg yobbu ci hôpital ngir ñu taxaw ko ndax li ngeen ni jàkkaar loolu yaram wi yépp ni la mel euh, ñuy sakku ndimbal nak xébu lenn numéro téléphone yaangi nonu ngeen di gis ci kaw bu ngeen ci woté wala lu ngeen yónnee ngir man dimbalé euh, euh ñi ngi koy euh mboolem ñi ngi dinañ ci tuddu ñenn ci ay tour sax ku melni ni assane asan bu khidmatul karim ak mbooloo mi àndal gis nañ taxawaayu am solo yi ñuy def ci jëmm yu mel nii ak sëriñ Moustapha euh, président Assir sëriñ Moustapha Jaxate ak mboolem jullit yëpp rek mi ngi noonu. بزال يا مليك بلا